balaa ñu may kaa ma kaa sama bopp dem tëri salaamaaleykum internetu Sénégal alors ñu am mbégte dalal fii Jahman Jahman euh, génnee benn euh, album récemment Abiyo album boo xam ne nag euh, déglu naa album bu nekk soyez pas frustré mais gisuma bu dàq album bu dàq bu Jahman génnee maa ngi lay nuyu dalal biir Sénégo. maa ngi lay fay maa ngi lay nuyu di nuyu ñi nga xam ne les internautes de Sénégo di leen jaajëfal di kontaan trop si je que c'est ma première fois ici. Mhm. donc à part yeneen kii yi ma doon def. li wax ne kontaan naa trop ci teewaay bi mhm. waaw. alors album bi gis nañu sa passage ci télé beeg yooyu explique nga un peu toog nga temps liggéey ko génne trois titres yoo xam ne mën naa wax ne yëpp it la mhm. euh, lan satisfaction bi ci am ni ñu ko accueillir Euh, déjà maa ngi nuyu Sénégal yëpp di di kontaan di nuyu sama dëkk Diourbel euh, d'abord di nuyu Sénégal ak public bi nga xamante ni mooy public hip hop bi fi nekk et euh, donc qui qui qui qui nous pousse peut-être je dirais vers la perfection parce que moi j'ai vu personnellement comment ils ont accueilli cet album et ça m'a fait plaisir parce que c'est un album quand même qui me tenait à cœur et ma nekk di ko liggéey pendant un bon bout temps nekk si di ko def. par presque un an avec toute l'équipe derrière le host site, mon label, le management, Milk, Meru. Euh, ñi nga xam ne ñoo si jàpp ñëpp si liggéey bi les Zeus les beatmakers IS 814 studio Kayfield. donc mu nekk benn liggéey boo xam ne c'était pas facile. dans la mesure où on voulait vraiment faire quelque chose de de de top. Euh, puis lu nekkoon à la hauteur de ce qu'on a déjà fait les. Euh, les euh, les singles qu'on qu'on a eu à sortir yi nga xam ne bu ci nekk rek defoon na benn tabac donc il fallait faire plus et euh, c'était pas évident donc du coup di remercier Sénégalais yi comment ils l'ont accueilli et di leen wax ne album bi toujours dans les bacs et continuer à streamer à supporter votre artiste et euh, on arrive avec des vidéos et plus de promos pour mm-hmm. ça. alors deux semaines deux semaines bi album bi génne compté naa calculé naa dama soxla son yi. plus de trois millions cinq cent vingt sept mille ñu ko déglu. waaw son yi. trois millions deux semaines mu génn bëgg bokk na ci album yi gën a déglu mën naa. waaw à part bon Youssou Ndour <laughs> bi bokk na ci ñu gën a déglu mu am ay titres nag ci album bi yoo xam ne peut-être avant ñu ñëw ci titres yi sa Abio. sa maam nga ko tuddee. ku ban liaison nga amoon sa sa maam ban ban. affection ngeen amoon ci moom ba xëy album nga tuddee ko ko. waaye man sama maam euh, je euh, sama sama xarit la woon donc di waa de nekkoon nit boo xamante ni moom laa gënoon a xam que lépp. bi mu bi mu gaañoo c'est comme si j'ai perdu une partie de moi boo xam ne nii ba léegi je m'en je m'en reviens pas nekkul lu may lu ma lu ma supporté ba léegi et ça fait des années bi mu gaañoo ba léegi mais. ba léegi euh, je la vois en rêve je la vois su plein de choses c'est une personne qui ki qui m'a beaucoup marqué parce que moo ma yaroon dama doon tëdd nii mu tëdd nii boo leen xoolee si teaseru album bi sur la sa avez vu dina am benn lal lal boo xamante ni en ancienne donc euh, c'était même lii bi man bi mu amoon nga xam ne dama doon tëdd si ginnaaw moom mu tëdd sama wet donc ñu amoon benn complicité tu vois Abio c'est un hommage à ma grand-mère et ñaanal fi mu tëdd gënal ko fii Euh, nekkoon benn moment bi muy dund mu ne moon man dama bëgg dégg sama way parce que boobu maa ngi commencé way mais ça lui faisait muy dégg comme moom a yar ndax da ngay way léegi euh, c'est bizarre léegi nag dama bëgg nga way ma ma xam et quand j'ai chanté pour elle boo ko emee aimé après six mois après un an un mois après elle est décédée bi abyo bi ma ko tuddee woon bi ma ko defee ak léegi ça doit faire plus de quatre quatre ans cinq ans le morceau Abio c'est c'est une reprise. Mm-hmm. ci morceau bi ci ab ci kii bi mu koy dégg mu ngi dund. donc quand j'ai décidé de refaire l'album euh, j'ai pas voulu changer les mots pour pour euh, wax ne dundatul. mais comme le morceau était là et que moi je pense qu'elle vit toujours en moi je me suis dit je vais def damay je vais immortaliser le son. Mm-hmm. et euh, ma defal ko way bi mu déglu ko ça la mu neex ko trop. six ans après j'ai décidé de sortir mon album mën na naa ko tuddee en fait. Mhm. donc euh, je. j'ai gardé ah, les 5000 francs. est-ce <laughs> non non non euh, j'ai traversé des périodes où je pouvais vendre. Mhm. mais euh, après man j'ai jamais voulu vendre ça parce que moo ma kii quoi si li si mu des li ma dese at moom la tu vois. et puis avant avant avant avant muy muy muy muy album bi di génn je suis parti à Diourbel j'ai dit je vais sortir benn album bu bees et j'ai refait sa tombe j'ai fait de telle sorte que mu nekk lu rafet tu vois j'ai pas encore fini même de faire mais j'aimerais bien après gën a embellir kii bi le plus album bi di dem le plus mais parce que c'est c'est c'est notre lieu de rencontre elle et moi tu vois j'y vais souvent su may def yenn affaires yi C'était une personne qui, euh, qui m'a beaucoup marqué, ma grand-mère, Abio, Abigail. Donc nous, on l'avait... Abio, c'est parce que je courais derrière elle tout le temps. Soudainement, ah, Abio, Abio, Abio, c'est comme quand tu y une personne qui, qui, est devant toi, tu vois. Donc là, mon histoire, Abio, parce qu'elle s'appelle Abigail, mais Abio, il faut que je Alors sa femme, elle a dit, c'est une côte de et tout. waaye daf leen surprendre daf leen surprendre parce que j'ai rien dit parce que ñun bi ñuy génne abio bi dañu jékki-jékki rek tu vois partout les gens voyaient abio tu vois les affiches les gens prenaient ça pour de pour de l'eau mm-hmm. ah maa ngi jégalu ñi nga xam ne les qui règnent Casamance c'est au tout le tour ñi nga xam ne jàppoon nañ ne que c'était concurrent mm-hmm. mais c'était juste pour euh, benn affaire boo xamante ni le label ñoom ñoo décidé woon def ko et euh, ça a fait couler beaucoup d'encre gars yi wax naan wax ci nañ ci wax wax wax mais après euh, c'était un album c'est l'album Abio qui est là kon est-ce que tur bi noonu affiche boobu noonu taxul nga perte ay sponsor par exemple nga dem di démarché fee na ñu ne ndox ngay waaj a créer genre yooyu noonu est-ce que amoo si benn blocage. non non non non non non non après après je sais pas parce que c'est euh, tu sais c'est tout ça c'est très technique moi je suis okay. trop scotché sur euh, côté musique et tout mais tout ça c'est les wanted les l'équipe derrière euh, l'équipe de com bon c'est une stratégie de com là même moi au, au début je suivais pas hein. Mhm. je m'étais dit waaw pourquoi lii il faut pour nañ génne kii mais bon xam nga loo maîtriser wul maîtriser woo ko c'est pas nekkul sama domaine donc j'avais pas compris mais eux ils l'ont bien réussi et je pense que ça va mhm. alors non non au milieu de l'album on cherchait le nom de l'album à un moment donné euh, tu vois le son Abio mhm. kii moom moo ko découvrir moom producteur parce que son bi ça quatre ans la durée en fait donc un jour mon producteur mu day dem ba si yàgg rek mu woo ma téléphone mu ne ma tu as fait un morceau qui s'appelle Habillons en reggae mu ne ko waay mu ne ma tu m'en as jamais parlé mu ne ko ah, bon loolu morceau la boo xam ne boolewuma la kon sama répertoire mu ne ma j'aime bien je veux sortir le morceau oh après tellement il était attaché à ce morceau ñu dem di dem di dem ba ci kii bi on a parlé il m'a dit pourquoi pas ñu tuddee ko Habillons ça m'a vraiment pris de haut le fait que moom mu bëgg loolu pour dire vrai mais le fait que mu jógee ci sama producteur je me suis dit waaw tu vois elle elle lui il connaît même pas ma ma grand-mère mm-hmm. mais le fait que mu jël décision boobu noonu daf ma dam dama man man déjà daf ma daf ma daf ma daf ma daf ma jëlee kaw en fait je me suis dit waaw et puis je pouvais pas rêver mieux que tur bu mel noonu Mhm. donc xalaatuma ko woon parce que je me suis dit defal naa ko son et puis tu sais man bëgguma woon mélanger trop sama vi boobu noonu ak la musique tu vois c'était quelque chose à l'écart mais je vois que je pouvais pas faire mieux mhm. et je suis fier aujourd'hui que album bi tudd Abiyo parce que dans le même morceau bi ma ko doon way maa ngi koy wax naan way bu dootul ma sa bi teaser bi génnee ak album bi que tout le monde disait Abio, Abio, Abio, Abio, j'ai dit, ouais, j'ai réussi, moi, sans le savoir, à immortaliser le nom de ma grand-mère. Tout le monde dit Abio, Abio, sans même connaître c'était qui ma grand-mère, donc. That was nice. satisfaction. tombé nag ñëpp déglu déglu album bi comme yow sax yaa ma wax chiffre yooyu man je connais même pas. dama soxla <laughs> mais invité <laughs> <laughs> alors euh, chiffre yooyu bu mu génnee ñëpp déglu nañ ko. am xam ne ñoo gën a. gars yi lañ gën a déglu. am soxla déglu mais am na soxla yoo xam moom lañ gën a déglu. Mm. mais balaa may ñëw ci loolu euh, sonorité yi. sonorité ku nekk mën nga ci mën nga ko fecc mën nga ko déglu. Euh, nan la demee woon. waaw loolu mooy liggéey bi parce que c' est c' est man dama dama kii comment je vais dire ça euh, je suis perfectionniste sur musique et. je voulais euh, montrer au moins que am naa facette bi mën naa def lii mën naa def lii mën naa def lii parce que à un moment donné Sénégal mën nañ la catégoriser fenn noo kii du rappeur noo kii waykat la noo kii mbalaxmaan la noo kii kii la et man image bi ma am si loolu moom mooy que ni musique la rek mhm. muy rap di salsa di zouk kenn mënu fi indi lenn mhm. lu dul musique génnul fenn fu dul musique le rap c'est de la musique donc les gens qui prennent le rap pour benn affaire boo xamante ni sonorité bi dafa war a wala dafa war a góore comme des termes comme ça ils disent voilà loolu ñooñu c'est-à-dire ils comprennent pas loolu bokk na ci li tardel musique Sénégal depuis des des années parce que si nous on avait compris on allait mixer nos sonorités comme le mbalax wala comme les. parce que def na ko après bu fekkee tey jii dañuy wax ne. Euh, képp ku def mbalax ou bien sabar wala rythme en de toute façon euh, euh, rythme boo xam ne c'est sénégalais ci sa ci sa musique nekkatoo rappeur kon Sénégal amatul rappeur parce que amul rappeur bu ko deful bul Sénégal y en pas je man boo gisaguma ko boo xam ne ni peut-être su amee c'est les puristes et il faut respecter leur point de vue ñoom noonu lañ ko gisee mais boo xoolee Nigeria ce qui s'est passé pourquoi actuellement ils, leur musique est consommée partout dans le monde c'est parce que ils ont amené seen bo seen musique lañ jël seen ay instru seen ay instrument bopp dugal ko seen musique et il faut pas avoir honte de ça on est des Sénégalais est-ce le savoir Euh, Cora leneen ak leneen ak leneen donc il faut mettre ça sur ci suñu yëf. Mm-hmm. et puis américain bi xam na loolu moom moo dem moo tax mu dem wuti ay samples yu mel noonu tu vois. donc sonorité yi je voulais mu am afro am reggae am pop am rap am kii et puis loolu ça m'a pris beaucoup de temps. sur la créativité sur la direction artistique ça m'a pris énormément de temps parce que benn son bu ci nekk rek ba. sama producteur wala sama manager mën na wax jël na mën na ma jëlal benn un mois presque ma si liggéey si lyrics yi ci composition bi le ton le vibe sing bi tout c'est c'est c'est important en fait mm-hmm. moi en tout cas je prends beaucoup de temps si loolu mm-hmm. euh, à part ça thème yi thème yi nga abordé si album bi alors pour thème nag dañuy def benn genre jeu ok voilà dama lay wax par exemple son nit ku nit ku désespéré ban son nga koy wax mu dégg ko ci album bi nit bu désespéré. waaw voilà amatul euh, confiance gëmatul boppam. ok ñun mhm. ñun. ça parle des mots de de de mhm. de la société des problèmes. mais mhm. c'est mais c'est c'est un, un, un son qui pose juste le débat en fait. ça pose le débat et euh, c'est pour montrer à tout le monde que ça li am na fi. mais il y aura d'autres morceaux dans dans dans dans ci album bi. yoo xam ne dañuy indi solution bi là ça pose le problème problème bi am na mais am na ay sons yoo xam ne nii dañuy indi kii bi donc c'est des thèmes liés par exemple ñun c'est un problème célébrer c'est une solution parce que célébrer ça parle de koo xamante nii da war a sant yàlla. am voilà ak loo mënti ne soo yeewoo rek si tu la possibilité de te réveiller le matin ak am possibilité yeewu. santal yàlla d'abord parce que à côté de toi beaucoup son parti mm-hmm. beaucoup souffrent beaucoup son sur les lits d'hôpital en train de souffrir beaucoup sont ceux qui viennent de d'aller en prison mm-hmm. beaucoup sont ñi nga xamante ni ñu ngi yeewu ak des problèmes yoo xamante ni peut-être yow yeewoo loolu mm-hmm. tu verras plein de gens qui son dans des situa dans des situations pires que la tienne et il faut rendre grâce à Dieu le fait que nga yeewu déjà loolu mooy the first thing soo soo yeewoo rek santal yàlla d'abord parce que suñ borom lépp lum la xañ xañ na lu keneen lu ko gën a metti lépp lum la teg tegoo ko parce que du teg lu ñaan moo ñu gën a xam suñu nit ku nekk li tax yàlla sàkk la yow ak yàlla la gën a leer. Mm-hmm. donc c'est ça ak euh, Amira nga ko defal. ñun euh, Amira Ouzik Narpi. donc mu nekk ay des artistes confirmés ñun nañ ko déglu ñooñu. voilà mais primeurs yi. primeurs ban son lañu war a def ñoo xam ne toog di wax rek am naa lii def naa lii kii naa. Ah waaw ñooñu loolu match. loolu match ça parle de de comme ni ma lay wax c'est des thèmes liés. ça parle de ce qui pense que euh, euh, la vie c'est comme ça en fait danga war a au moins euh, loo am wane ko alors que nit am na lu ëpp toog ne pat ak moom. Mhm. soo amee daal bu bees ñëpp xam ko li ngay. genre li ngay jàpp ne daal mooy la vraie vie le matériel tu vois le matériel le matériel tu il y a des personnes qui mettent en avant le matériel alors que euh, ce humanisme mu ngi dépendre na ci leneen des des il y a des gens qui sont qui n'ont rien du tout et qui sont beaucoup plus heureux que toi donc loolu ça euh, loolu du match que j'ai un featuring que j'ai fait avec Dayzer que je salue de passage respect bro parce que je sais que bii mooy première featuring am musul nangu def featuring and that was nice so moom mu accepté ko def si benn affaire bu tight moi je me dis que l'album c'est moi et les autres artistes qui ont pu accès par exemple c'est des artistes qui ont amené l'album fi mu toll actuellement waaw mm, uh, Nix. Uh, yeah Nix mm. uh, Deep. Deep e the Best. Mm-hmm. donc ñooñu ñëpp ay Amira donc c' est des c' est des personnes qui ont contribué si album bi toll fii nii. Mm-hmm. ça aurait été moi seul ça ne pas décoller parce que pour moi la musique la le partage donc du coup. d' comme yow ah. non ku la man je suis désolé alors je bi ma ko doon bind j'étais pas encore marié. Ah son boobu am na deux ans. le ah, son là a été <laughs> le son là a été composé ñu bàyyante. en même temps. Mhm. tu vois mhm. Sékou ñu bàyyante bi muy pare son ba fekkoon na mu pare. d'accord donc ah, je salue de passage man ak moom on va à faire des trucs ay affaires yu ndaw la ñuy jàpp def ko ay kii yoo c'est un son un peu comique mm-hmm. mais euh, bu am leçon de morale bu nekk si biir et tu vois takkal takkal takkal il faut ngeen dem takk jabar yéen tamit <laughs> pourquoi vous leen si gaawaay takk jabar mu jeex <laughs> alors bu ñu bu ñu mooy ñuy gaspiller seen temps aw ma temps aw ma temps aw ma temps c'est pas c'est pour inviter les gens à faire, a a à, a à, prendre sur eux-mêmes. Par exemple, tu prends sur toi de temps en temps, il faut fair la sourde oreille. Mm -hmm. C'est des thèmes liés. Je te dirai après avec quels sont ces liés parce que euh, nit su suñu su su bëggee résoudre yenn problème yi foog mu gumba tëxlu ci yenn problème yi tu vois tu peux pas être ici et nekk faire l'unanimité ku nekk ñëpp bëgg la mënul nekk mais soo ko bëggee solutionner da ngay da ngay mën tànqamlu parce que àdduna il faut nga am des épaules très solides pour mën ci génn tu vois faut nga xam ne euh, des problèmes euh, des critiques wala ay wala ay clash wala ay ñi bëgg ñi bañ ñi di la ñi bañ la sans sans xam sax lan moo la ngeen jotee y en aura ça va pas finir tu peux pas donc boo si bëggee génn il faut ngay mën jëlale donc jëlale mooy si son bi da ngay dégg ñu naan la dégguma la woon dama takk ay écouteur quelqu'un qui ne t'entend pas parce que chaque jour nga gis lu la blessé dans dans la vraie vie que ça soit dans la famille que ça soit en couple que ça soit entre amis di nga dégg lu lay blessé mais moi je pense que si tu te prends sur toi et que nga bañ mel ni ku déggul di nga mën a bàyyi dem bàyyi di nga mën a dépasser stade boobu nekk si leneen mm-hmm. donc c'est ça en fait nekk na son bu comique mais am na leçon de morale si biir dégguma la dama takk ay écouteur xeer yi may sànni laa jël tabale dajale tabax ngandim kër yeah parce que après les gens qui te critiquent qui te critiquent tu prends ces critiques là nga positiviser ko mu nekk loo xam ne mën na la jëmale kanam mm-hmm. parce que moi je je le dis haut et je me baax parce que je vois pas mal de personnes yoo xamante ni qui attendent que ça marche pas des personnes qui disent que ouais ils veulent pas personnes qui sont mis à l'écart juste parce que dañu bëgg gis après ñi il faut se battre pour ouais après moo yore ñëpp il faut se battre il faut il nga gëm sa bopp nekk si li nga war a nekk job ko xam ne fii nga bëgg a dem nga dem foofu noonu et puis li lay li lay tardeel yëpp yëpp soo xoolee c'est des détails donc awma temps ça parle des détails ay problème mm-hmm. diw nee la nii nettalil nañ lii waxal nañ lii kaa nañ la fii kaa nañ la fële sama kaa bi dinañ ci sama kaa. Mhm. parce que sama kaa ça de yow sa kaaw bopp. fii da ngay gis kuy nettali man damaa waxal sama bopp si son boobu de. Mhm. parce que man je suis pas Blanche Neige. j'ai des trucs yoo xamante ni suñ ma ko wanee loon tey mën naa rus. Mhm. et euh, euh, ñi may jàkkaarloo di leen ko wax nekk nañ ay nit yoo xamante nii peut-être ñoom tamit ils en ont parce que waa ngi koy wax ci biir son bi woowee ma Iblis bu dee ku def erreur da nga bon des erreurs dañ koy def ñun ay nit lañ yàlla moo ñu sàkk nangul ñu suñu juumte déjà mais nit ñi nga xamante ni dañuy passer seen temps pour waxal nit wala defal wala génneel nit lu rafetul ak yooyu noonu am nañ lu rafetul lu ñu ñu nëbal seen bopp donc man à la place de may waxal kenn damay waxal sama bopp balaa ñu may kaama kaa sama bopp dem tëri comme ça <laughs> luñ la waxal rek. luñ ma waxal def naa ko ba pare. def nga ba pare yeah that's what it is. man <laughs> je suis un artiste donc il faut il faut pas se voiler la face on n'est pas Blanche-Neige on a eu à faire des erreurs on dañuy ñaan yàlla rek gën a jàng ci erreurs yooyu pour mën a nekk si leneen mais on est on est on est des humains on peut faire des erreurs donc voilà. si aw ma temps bi sànq kii nga ko xaw nga ko. maa ngi la bëggoon laaj son bi c'était pas mën naa wax sérieux parce que da si mbalak <laughs> mën naa wax jaama da si mbalak c'est un son boo xamante ni loolu ku la bañ bu ko dégloo sax day gën a mer c'est rien de sérieux en fait tu sais le morceau morceau bi def naa voix yi plus de quatre cinq fois est-ce que ci son bi non parce que parce que il fallait que ma am voix bu un bu voix bi euh, euh, la voix devait être quelque chose de de rigolo, tu vois, et j'avais pas cette voix. Donc, bi ma ko njëkkee prise, j'ai vu que la voix elle était trop sérieuse comme ay affaire de ci la en fait lu série lu lu lu baax la lu lu lu lu neex la quoi bugguma si woon loolu. Donc du coup, après je me suis dit je vais faire de telle sorte que la voix soit un peu morte tu vois et mm. puis ma yeewu benn suba rek dem le matin sans parler aller au studio et le faire avec ça mm. tu vois si way bi da ngay wax c'est comme si benn benn benn benn benn mandikat mooy wax <laughs> <laughs> tu vois sérieux waay mm. mais am na quand même leçon de morale yeah nix this nigga yeah <laughs> et puis à la base nix mm-hmm. euh, j'ai fait le son avec Pasha Pasa Pasa Pasa bu bu Didi Record. Mhm. and uh, ak Zeus. donc Zeus c'est lui qui a fait euh, par le ëpp lu si son si album bi. donc uh, Just Just Beat il a fait quasiment les il est trop il est un c'est après j'ai fait les trois ouais il faut parce que mooy loolu. j'ai fait en train de mixer ça. Nix dégg ko. ne waaw. di à ah, wax leen jaamaan que il je pose sur le son et quand on m'a dit ça j'ai dit <laughs> je pouvais pas rêver mieux j'ai dit voilà ouais, mais il faut il le faut et il a fait le même jour il a écrit genre tac di tic au tac mu génne affaire bi def ko mhm. et euh, t'as vu mu bi yëpp ban son mooy reflété yow boobu moo ngi bind nga xam ne yow nga sa bopp ngay waxaat. Ouais, c'est l'intro de mon album. Le, dans l'intro de mon album, je parle de ma vie, de mes proches, ñi nga xam ne ñoo ma gën a jege, ñoom dinañ mën comprendre. Mhm. Peut-être c'est c'est des choses que je pourrais pas dire ici devant tout le monde. Euh, pour moi, moi j'aime pas tout le temps, j'aime pas me lamenter devant les médias wala di wax sama ay problèmes parce que je pense que les Sénégalais ils ont assez de problèmes comme ça et tout le monde en a des problèmes. Donc moi quand je suis là, c'est pour euh, émerveiller les gens euh, euh, faire rire les gens kontaan loo leen mais pas pour les rendre tristes et je sais que y a plein de choses yoo xam ne su ma ko doon wax les gens seront peut-être tristes ou bien auront pitié de moi et j'ai pas envie que les gens <laughs> ñu am pitié boobu si man je suis un artiste je veux que les gens consomment ma musique de façon très positive et avec plus de considération niveau euh, musical wala leneen au, au lieu d'avoir pitié de moi ou quelque chose comme ça. Parce que, mais dans, dans ce morceau, j'avais envie de parler pour moi, j'avais envie de, de, de, de m'exprimer. C'est des faits très réels. C'est ma vie quand même, ma vie privée. et mais j'avais envie de l'exposer et pour euh, que. ëllëg album bi tamit li ci yow des fois non je pense pas que am na coow bu bëri si man man coow bu bëri si man amul donc tu tu vas entendre coow de gauche à droite. mais ay de benn artiste lay doon wala ñaar mais moi je suis bien avec tous les artistes je ne vois pas. su ko nit yi gisee kon nañ ma ko wax je ne vois pas d'autres artistes mhm. qui qui qui sont là à me critiquer de gauche à droite parce que je fais ma musique man musique du guerre ñun nekkuñu ay bande yi nekkuñu ay ñooñu nga xamante ni hip hop nag hip hop la man su waree salté mën naa ko salteel te et je l'ai prouvé dans l'album mën naa wax lu ma neex mais wax wax la rek ah ko fi kenn ku rey nit ko fi kenn ku tiire kenn gisagoo fi kenn ku jamante kenn maar day taal duñu def loolu on est des sénégalais mais salteel bi wala wax bi yooyu noonu si si si si si ci hip hop bi la yam parce que game la loolu game la te mënu si ñàkk mais fa lay yam. kenn nekku fi terminator <laughs> non amul yooyu ay affaire yooyu parce que ku ci nekk am nga vécu man j'ai pas envie de montrer que benn gens laa si sama lu may def man gis naa lépp. di nappe. man si groupe express laa nekkoon man si groupe bu gën a hip hop laa nekkoon Sénégal laa nekk Sénégal. Mhm. on a eu affaire rap def naa ko plusieurs fois nañ dem revisité waat sama ay sound yu yàgg ay réer ay sama baat ay sound ay am-am dama si doon rap comme nu may rab mieux que nu may rabee léegi si mais après euh, je mu ngi évoluer mun naa def leneen mën naa def lii lii def naa ko ba pare tu mais après de façon mais coow jubul siisu mënuñu ko ragal artiste YouTube la def spectacle yu mag artiste YouTube bi daal lay amee sa million de vues après toog koyam ngir beneen affaire ah mais loolu su fekkee loolu la sax baax na moo ma gënal sax après may dem si concert yi di tëb di dal alors que j'en fais. Mhm. je fais des concerts de gauche à droite maa ngi def ay. mais bariwul da ngay def si je fais des tournées man après euh, personne n'a fait euh, beaucoup de tournées ci moment yi ñu jëm parce que sama tournée yëpp euh, kii bi moo ko yàqoon Covid bi mais on va en faire. Okay. on va en faire plusieurs incha allah grand théâtre wala bien sûr euh, musée wala bah ouais. yooyu noonu mais ouais bien sûr man loolu amu si problème. dañu naan da nga ragal yooyu de. ah ouais. waaw dégguma ko woon. maa la ko wax tey. damaa écouteur de. da nga tàppe ah da nga voilà ci album bi tamit ñu continuer deux sons love love distance dof si dof si love. yeah. son yooyu expliquer ñu un peu deux histoires différentes là. yeah c'est des c'est des problèmes. Mm-hmm. c'est des problèmes d'amour en fait comme j'ai l'habitude de dire nee naa leen man euh, je je je chante des problèmes d'amour parce que. Love Distance, ça parle d'un problème. Dof si Love, c'est une chanson d'amour. Parce que c'est laa wuti tu chantes les Hello, Journey, diw dafa jekk dafa kii lool loolu man laa jàppee love song. mais comme sekk ñu bàyyante. Mhm. c'est un problème. Mhm. parce que ñaari nit mën nañ bëggante nekk si benn kër ñu jotee par pur orgueil ku nekk téye sa bopp kenn du bëgg njëkk a wax sa morom. Mhm. donc loolu problème la. love distance c'est un problème. nga mën nga am sa jëkkër mu nekk fii. yow nga nekk Europe wala mu nekk Europe yow nga nekk Sénégal mën nga am sa jëkkër maara day taale mu nekk jeel donc distance boobu noonu c'est des choses yoo xam ne nit ñi dañ koy dund e puis mu nekk loo xam ne c'est très difficile donc euh, c'est des tableaux yu may gis et j'essaie de traduire sa dans ma musique et les gens boku beaucoup je vois c'est mu nekk top tendance déjà si album bi et it's nice que les gens ils aiment va non man je suis pour faire li nit ñi bëgg defu ma ay affaire de extraordinaire yooyu bu ko nit ñi bëggee rek ci dara. def na 3 300 la ak bi nga def ak dip. yeah loo waaw yow laay nombaat. yow laay nombaat di sa love song ak um, uh, si gaawaay si gaawaay c'est c'est euh, mënuñu ko considérer comme love song mais ça parle de demal ci lii demal sa lii c'est juste comme comme ay conseils la rek. Mhm. alors def naa def nañ tour album bi yëpp je crois. <laughs> fàttewuñu benn son. mais bi man damay fàtte benn son alors euh, album bi génn na tey lu ñu mën a xaaraat euh, si jaamaan promotion album bi déjà. waaw là là là ñu ngi si digital bi ñu ngi si des des des euh, on va en train de faire la promo. Mm-hmm. et avec des vidéos qui vont arriver dans pas longtemps incha allah sur les sons yi nga xam ne gars yi gën nañ ko bëgg. bëgg. et euh, li si des moom avec des tournées comme je dis donc on a on est en train de ficeler beaucoup de tournées moi sama tournées yu bëri dañ ko canceloon ak Covid bi ñu ngi ñaan bon bon ñu on va croiser les doigts pour que Omicron bi du nekk benn source de problème pour les artistes parce que les artistes ils souffrent quand même. c'est un album boo xamante ni avec des millions d'investissements tu vois et que. tu peux retrouver ça que si boo amee ay spectacle donc il nous faut des spectacles il nous faut pas mal de choses donc ñu ngi ñaan daal affaire yi calmé wu. mais décembre bi xanaa di ñu ngi def ay spectacle donc euh, je dois partir en tournée ci yenn dëkk yi. Mhm. man nag j'aime bien. dem si yeneen zone yi et tout mais on va faire des des dates ay des petites salles à Dakar et une grande salle. peut-être en mars incha allah. Mm-hmm. on est en train de peaufiner si loolu si am rek dinañ bu ñu ñëwee dinañ si gën a communiquer incha allah. Mm-hmm. ci euh, ci Galsen hip hop bi nag fu mu nekk nii nan nga gisee ban lecture nga ci am style bu bees bi gars yi ñu ngi mu ngi wax ne c'est bon ñu naan baaxul. ban la ban ban style. genre mbalax bi dañ ciy boole un peu wala boole si bi yenn sonorité yoo xam ne. mais il faut juste voir ñi naan baaxul rek ñi naan baaxul ngeen di xool. ñan la naan Bass Thioung dañ le temps. j'ai pas compris. Bass tout le temps si seen.

après man du ma comprendre qu'est-ce qu'ils veulent prouver ces ces gens-là lan lañ bëgg a prouver lan lañ bëgg a wane ci rab bi ñuy wax ak rab boobu noonu ñu bëgg imposer ñu par force par force force lan lan moo si nekk loo xamante ni mënul nekk si li ñuy def nii problème de sonorité mais Zouk Love mën nga ko sax jël way rap si pourquoi des artistes pourquoi ils accepteraient qu'un artiste jël benn son afro def si rab si comme tu le vois souvent ngay gis artiste bu jël son afro def ko les Russes même mêmes la là qui disent que ñu jël rab bi def ci mala ils peuvent kiffer ça il peuvent écouter ça il acceptent que loolu war a am même ñoom dans le répertoire tu verras que dinañ def lii ñu doon déglu groupe yi gën a wow ils ont vu ça des personnes yuy way léegi Eminem c'est un kicker qui est beaucoup plus kicker kii moom que moom il chante de temps en temps il day dugg si yeneen track et même bu fekkee ne li muy def hip-hop la ba léegi. man je peux pas comprendre nga ñu artiste def afro. qui n'est ñun suñu yëf suñu bopp déjà qui n'est pas du rap déjà ci sonorité bi nekkul rap ñu consommer ko bu ñu jëlee ñun sonorité mbalax def ko si ñu bañ ko consommer donc c'est où c'est où le problème man je comprends pas. en tout cas man kenn mënuma ko imposer donc c'est il faut que ça clair maa ngi disante maa ngi leen di ñu ñëpp di ma dégg kenn mënu ma lu may def sama musique lu ma bëgg def laay def loo xam ne nii fil naa ko bëgg ko def après libre à tout le monde de ne pas parler sur mon album si tu veux ne parle pas si tu veux ne critiquer même nekk neel di mbalax wala whatever danger ma mm-hmm. alors Ego ak euh, Clash Clash mu nekk tendance instant euh, est-ce que loolu lan nga ci xalaat il y a différence am na différence mais rappeurs moom la ñuy def suñu deful clash ñu def ego trip. waaw mais bés bés ba ici si hip hop hip hop loolu la hip hop waxantelu ñaaw la yow nekkul ay affaire de neexalante <laughs> loolu la mës nekk tu vois affaire bi mën nga bañ ak nit nii war a whatever après mais su ngeen waree su waree am biif kenn mën na ko mën kenn mën na ko bañ a daw mm-hmm. parce mais Nas ak ay. ay jay yi ak ay keneen ak keneen ak keneen da nga doon gis ñu def ay ngan di clash nga wëlbati ko gis leen ñu nekk feneen toog di bang parce que loolu game la tu vois loolu yàgg na fi am dari bi sonn ak ak command def nañ fi lu nekk ñu jël ko boole ko sax il faut que nit ñi xam ne loolu ci clash lay am mais de temps en temps clash mën na mën na mën na mën na mën na mën na génn yenn normes yi mm-hmm. man man man je dirais jamais du mal sur sur sur la famille de quelqu'un wala sur le physique wala loo xamante ni day génn clash mën nañ waxante whatever mën nañ xasante wax ay kii ak yooyu noonu mais man j'aime bien que su su nekkee ci benn affaire parce que am na fu muy toll day day xaw a salte ba laal keneen ak keneen ak keneen koo xamante ni tous ces rappeurs là qui se sont waxante ay wax yoo xam ne génn nañ ku ci demoon ba tasanteeg yaayu beneen hip-hopeur feneen bu la jàkkaarloo ak yow di nga ruus parce que on est des sénégalais c' est dans notre ADN. le respect il peut on peut pas sortir ça dans notre ADN. on est respectueux et il faut que ça se ci suñu ay sang. ça fait pas de nous tu vas être taxé si pour le respect tu vas être taxé de quelqu'un yow ragal nga am na ñoo xam ne duñ déglu sa rab bu amul clash. tu vas être taxé ça n'a rien à voir tu vois la politesse ça fait partie de ce qu'on est en train de hmm. il faut pas que di leen nax. que ni waaye gangster whatever fii waaye na nu nekk defe nañ que nu nekk ci waa man dans group groupe on faire pas mal de trucs ak des scènes dem fu nekk ay scènes yoo xamante ni pour nga way sax dañ naan la doo fi way. Mhm. donc le hip hop sénégalais a traversé pas mal yoo xamante ni suñ ko defoon suñ ko réglé woon démb doon na kii waay sax dañ ko doon bañ. waay sax dañ naan la non kii féeg dafa féege waay <laughs> waaye ah dañ naan non kii dafa féege parce que day waay. <laughs> ça c'est un problème. donc des personnes limitées comme ça waruñu la tardel ci benn affaire en tout cas man je fais ce que je sens tant que nit yi ñu ngi koy bëgg. mu ma siy jaarale ay leçons de morale wala ma siy waxtaan ak nit ñi wala ma siy may gis que ni les gens ils aiment bien je vais le faire je vais pas m'attarder à si benn kenn ku taxaw fële na lay ñëw critiquer sama album après may attardé aussi yow oh non 90 pour cent des des des donc benn groupe de personnes buñ buñ buggul c'est normal sax pourquoi je veux pas avoir ñëpp sama sama sama sama wet donc album bi ni mu génnee nii j'ai vu que les Sénégalais l'ont très bien accueilli am na ñoo xamante ni bëgg na ñu ngi koy wax de gauche à droite tout le monde en parle mais tu verras des personnes qui décideront de ne pas en parler parce que ils sentent yenn problème yi si biir ay way am na sonorité lii am na sonorité laa def nga lii ak lee ñooñu xaw ma sax ñoom fan lañ dëkk. maanaam yow daal def nga sa album apprécié. yeah what is nice is nice. d' accord alors ñu jeexalee ci actualité violence bi gis nañu tëggee ju fa xew gis nañu temps violence bi bëri na ci dëkk bi peut-être benn message boo xam ne dañ koy lancer. mooy li ma la wax rek mooy cette manque d' éducation là que les gens veulent s'imposer tu vois des personnes yoo xamante nii dañuy judd ci famille gis seen paa yi def lépp réussir lu bari. ci ay quartiers yu difficile te taxul ñu nekk ay gangster wala ñuy ñuy ñuy ñuy ñuy prôné ay gangster nga gis booy bu juddu décidé na milieu bi na ko changé genre moom mooy bàyyi boppam milieu bi changé ko en fait mm-hmm. il décide d'être un bandit un voyou tu as que ñi ñi ñi nekk ay ñi nga xamante ni ñoom ñoo jël wéy boobu noonu fan lañ mujjee et toi de façon très délibérée yow nga choisir woo affaire boobu noonu comme si tu avais envie de prouver que tu, tu violent comme si tu avais envie de prouver que bandi nga et ban apport la la mën a wan donc cette manque d'éducation là moom mooy thème ba dugg suñu rapport ak comment on gère ci suñu ménage comment on doit voir nos sœurs tu vois tu vois des des personnes qui violentent des filles di leen dóor wala nga jàpp jigéen def ko benn affaire boo xam ne c'est parce que dañu rapport boobu lañ dindi léegi on veut coûte que coûte être impoli on veut coûte que coûte ressembler à des américains qui nous vendent benn genre vie boo xam ne c'est même pas vrai wala voilà, si c'est vrai sax c'est révolu maintenant ce qui se passait dans les trucs ay boy yi di dikii nii non pourquoi dem na pas aller au stade dem en match dem ñibbi pourquoi parce que des gens qui vont perdre leur vie pourquoi lamb bi mu nekk ay affaire yoo xamante ni ay pas def nañ ko fi ba pare te ay gaynde lañ woon nekk ñoo xamante ni mosuñu ragal dara yow nga bëgg ko ñëw defee ko neneen nan bëgg a nekk bandi bëgg a nekk ay gangster bëgg a nekk ay leneen ak leneen il faut que nit ñi arrêté business boobu xam ne ñun am nañ lu ñu am dañ ko war a teg sàmmal ko suñu bopp. ci waa après c'est les mêmes personnes qui vont se si suñu organiser ay affaires et les les sponsors viennent pas parce que il veut pas coller leur image avec cette violence. Mm-hmm. et puis c'est c'est comme ça tout le monde paye. yow da ngay nekk sa ruuxu di ko def di ko salteel ñëpp après ñooy fay parce que ci même vague bi la ñuy boole ñun ñëpp tu mhm. vois et nekkul man man pour man il faut ñu xoolaat comportement yi mhm. il faut que ñu étudier waat comment on on peut nan la war a doxee nan la ñu war a sàmmee suñu suñu suñu image ak nan la mën def pour pour jële pour jëlee jeunesse bi si li mu nekk nii dem si beneen affaire tu vois tu vas avoir eh, tey les rappeurs là ils sont ñu ngi wane image bu rafet parce que ah ba ñi nga xam ne boog ñoo si ñoo si ambitieux da nga leen di xool soo leen demee seen kër da xam ne ñii c'est des personnes très organisées bu am yu am vision beneen bi nekkatul rab bi léeg-léeg si ghetto bi sol yëfu doof wala wax ay yëfu doof booy dañu bëgg léegi ay teg ay affaire parce que il savent que c'est possible avec cette musique on peut on peut on peut bâtir des trucs on peut créer on peut gérer une famille on peut faire donc ci mbalax lañ ko doon gis mais gars yi ils sont organisés en tout cas moi je je je cautionne pas affaire yooyu noonu nekk na loo xamante ni c'est vraiment déplorable te gis nga bon ñun ñu ngi si perdre seen vue day di di ñi rayante tu vois si ay nawetaan loo xam ne c'était juste pour passer à des vacances tu vois en tout cas suñu papa yi dafay wuñu ko woon nii. Mm-hmm. alors <laughs> maanaam genre euh, déjà album bi génn nag ba ma ñëwoon euh, jël la si sekkuñu bàyyante da nga ne ma woon amoon na benn anecdote bu triste bi ma raconté woon couple couple bi xuloo woon son bi ci boole leen. mais album bi est-ce que am na ku la ci woo ne la takk naa si jabar ndax lii. wala boog am benn anecdote bu mu la raconté. <laughs> boo xam ne son bi moo ko marqué. bu mais maa ngi si jot maa ngi si jot surtout ci yenn son yi yenn yi maa ngi si jot énormément de retour quand même. comme le son ñun euh, comme le son yaay. Mhm. yaay que j'ai fait avec euh, euh en sonorité avec comme Souleymane Faye tu vois mhm. euh, c'est c'est des sons avec beaucoup beaucoup de retours en fait et puis euh, le son xarit avec As the Best. Ouais. c'est un son ba may xam ne maa ngi si jot ay kii. Mhm. je vois des personnes qui sont en train de mettre maintenant en avant seen amitié. tout le monde parlait de noon noon sama noon bi sama noon bi sama noon et kii da nga doon xool on avait même l'impression que xarit amatul pourtant y a des personnes yoo xamante ni ay xarit lañ ba léegi mm-hmm. et je vois des collages partout des personnes donc ces images là c'est des images très positives et si mon album arrive à faire ça c'est déjà quelque chose si mon, arri mon album arrive à regrouper encore et à rassembler des à recoller des morceaux yu mës a yàqu entre nit ak nit d'accord beneen question bi marié nga léegi célibataire bi léegi change na un peu c'est c'est ouais ouais bah je suis marié quand même. léegi nekkatoo di fanaan studio xanaa. ok <laughs> ah. si xanaa la yóbbaale madame. non non non non je man sama album sama album sama album c'est ça m'a pris beaucoup de temps énormément de temps si si loolu donc. Mm-hmm. il fallait que je ma def ko et tu vois. képp ku may àndal tamit ci obligé nga xam loolu. yi mhm. nga xam ne bon am na beneen vie boo xamante ni dama koy partager ak ñeneen il faut que ma jox leen parce que ma dugg si loolu tu vois. Mhm. Eh, ça. mais changé na sa vie. waaw positive normalement il faut que ça change. alors looy tàggatoo ak euh, ñu doon seetaane. ba di leen kontaan di leen wax que ni euh, ça fait un plaisir de venir euh, ñëw fii Sénégal jàkkaarloo gars yi internet yi waxtaan ak ñoom. Euh, di leen wax ne l'album Avio est toujours dans les bacs sur toutes les plateformes de musique allez streamer partagez on arrive avec plein de surprises incha allah yeneen a yeneen. d'accord ban son nga ñuy may un peu. Euh, dox love. Ah, <laughs> dox love dox love dox love da love ma saagoo dam ko noob xaw ma lii lu mu doon xale bi dafa metti metti metti am na tuuti bandi bandi bandi yaa ngi feexal sama xool bi xool bi xool bi bul ma sori kaay fi kaay fi kaay fi sama mag moom sama kaa mooy mooy mooy